que ni une la ñuy def mhm. euh, Pierre-Edouard Faye ko ñaan donc dañ ko koy may ba lundi incha allah mhm. mais Pape waaw ñu wax fara fas yéene waxtaanee tey ponk bu am solo muy mbirum mhm. avortement avortement bu ma juumul dafa dafa bari ay mbirum avortement moo xam avortement clandestin la moo xam euh, boo xamante ni médicalisé la wala lu ci doon ba ci sax les femmes juristes yi doon nañ fi yëkkati benn projet de loi di wax ne pour ñu ñu ñu ñu euh, daganal ko mhm. pour yóbbu ko assemblée ñu voté ko mais ay ñoom jamraak ñoo ñëpp jógoon nañ ci am ay baat yu ni ci kii déjà ñu ñëw ci avortement lan la moo bi waaw euh, avortement bu ñu ko waxee mooy yàq biir wala boog ëmb bu yàq ko moo xam anam boo ko mënti yàqee moo xam da ko war a da nga ko def de manière clandestine muy avortement clandestin mooy bi nga xamante ne demoo l'hôpital yow yaa def say pexe ba yàq mhm. ëmb bi moo xam avortement médicalisé la bi nga xam ne da nga dem hôpital ñu def ko mhm. donc tey dañuy visiter cadre juridique bi xool lan la ci loi wax mhm. ak tamit lan mooy li nga xamante ne moom mooy coppite yi ñu ci war a indi alors euh, li may njëkk a leeral ci tàmbali bi mooy yàq biir ak anam boo ko mënti defee loi bi daf koy tere. Mhm. benn anam la ko loi di daganalee. bu fekkente ne bu ñu yàqul ëmb bi ku jigéen ki day faatu. Mhm. dans ce dina autoriser ku jigéen ki yàq ëmb bi. bu sa vie nekkee en péril daal. bu sa vie danger. Mhm. mais loi bi dafay préciser ko il faut que ñetti médecins yu bokkul kenn ku nekk nga attester que kii bu ñu yàqul ëmb bi. ku jigéen ki day faatu. foofu la autor procureur de la république di soog autorisé ñu def li nga xam ne moom mooy avortement bi mm-hmm. donc loi Sénégal loolu la ci wax donc ku dem article 305 bu code pénal mm-hmm. moom mooy waxti lépp loo xamante ne jëm na ci wàllum avortement mm-hmm. te daan bi nga xamante ne mën nañ koo teg ñi ko def mi ngi li ci gën a tuuti mooy 6 mois li ci gën a bëri mooy 5 ans 5 ans waaw mais am na cas yoo xam ne mën naa jéggi 5 ans bi dem ba 10 ans yan cas par exemple donc loi bi day wax ni. waaw lépp lu jëm ci wàllum avortement. Mhm. du ko jigéen ki ko def kese la loi bi day dal sa kaw mais ki ko jàppale ba mu def ko. waaw loi bi day dal ci kaw. maanaam bi wala ki ci xam wala sage femme la wala keneen bu ak anam bu mu ko mënti defee. muy ku ci wàllum santé ak yeneen ak yeneen. loi bi tam di préciser article 305 bi di préciser ba léegi na bu fekkente ne koo xamante ne nag day yëngu ci wàllum santé moo ko def moo moo yombalal ku jigéen ki avortement bi moo xam médecin la wala sage femme wala infirmière wala bépp agent bu yëngu ci wàllum santé mhm. daan bi day gën diis parce que bu weesoo tëjub kacu bi ko ci mën a fekk. Mhm. mën nañ laa suspendre ne la par exemple yow pendant cinq ans. Mhm. dootoo sol blouse. bu blanche pour pour pour pour def liggéey ci wàllum santé donc loolu tamit loi bi prévoir na ko. Mhm. donc ni loi bi di sanctionné moom ku jigéen ki moom ci boppam ki ko def noonu la loi bi dalee ci kaw. képp koo xamante ne yow yaa jàppale ku jigéen ki mu def avortement. ok loolu mooy li nga xam ne moom moo ci am. maintenant cas bi nga xamante ne nag ci la loi bi di di autorisé. ku jigéen ki ëmb yàq ëmb mhm. mooy bu fekkente ni comme ni ma ko waxee léegi bu ñu yàqul ëmb gi ku jigéen ki day faatu mhm. te dans il faut ñetti médecins yu bokkul seede loolu bu ñu seede loolu ba pare ci le procureur de la république di ko soog a autorisé te boobu nag da day nekk avortement médicalisé boo xam ne da dem ci l'hôpital ñu def ko parce que avortement boo xam ne defeewuñ ko hôpital dafa am mhm. ay conséquences yoo xamante mën na jur ci wàllum protocole de Maputo mën naa ko pour pour moom euh, expliquer ko de manière terre à nit ñu ah, comprendre ah. rek mooy benn loi communautaire la boo xam ne dafa ëmb mbooleem ñun su suñ dëkku Afrique yi ah. protocole de Maputo Sénégal da ko ratifié comme ni mu ratifié yeneen convention internationale yëpp Sénégal noonu la signé loi boobu noonu d'accord na ci mm. mais da koo signé ba pare mais commencé guñ ko appliquer fii protocole de Maputo day wax ni mm-hmm. bépp jigéen bu ñu viole ba nga jëli ci ëmb pour que ñu mën laa may ngay def avortement médicalisé mu euh, euh, ëmb boo xam ne dafa jóge ci viol mm-hmm. wala mu jóge ci inceste wala dégg nga maam mu nekk euh, ëmb boo xamante ni risque la pour jigéen ki donc Sénégal ratifié na ko. Mhm. mais ba léegi appliqué wuñ ko ak suñuy loi nationale foofu la problème bi nekk. te gis nga euh, le fait que. Mhm. le fait que autorisé gu ñu fii avortement médicalisé. moom mooy jur conséquences yu bari. waaw mooy mooy waral infanticide. jigéen ñi jur doom di sànni. parce tey ci information rek yaa ngi gis ne am na ci ñoo ay cas yu xam. yu am ak yu ni mel. te foofu béti xam nga déjà infanticide mooy jur doom rey ko wala jur doom sànni ko mhm. loolu loi bi daf koy tere crime la jigéen buñ ci jàpp mën nañ la tëj kaso ba sa giiru dund dañu toll jamono boo xamante ne c'est l'occasion ñu préciser ko jur doom sànni vraiment dafa xeewi parce képp koo xamante ne jur nga doom boo xamante ne anam yi nga ko juree du anam yoo xamante ne kii mën nga ko yóbbu ci pouponnière yi mën nga ko yóbbu ci ci ci ci ay ay mesures yoo xam ne fi ñu toll nii ñoom ñooy ay kuréel yoo xam ne nekk nañ fi di jël xale yooyu nga xam ne juddoowuñ ci anam bi nga xamante ne mm. neex na seen waajur donc mm. jur doom rey ko wala jur doom sànni moom dafa xewi képp ku mm. jur doom boo xamante ne neexu la mën nga kaa yóbbu ci pouponnière yi wala nga yóbbu ko ci structure dédiée yi nga xamante ne ñoom ñooy accueillir ci orphelinat yooyu noonu nga xamante ñoom ñooy accueillir xale yooyu nga xam ne dañoo euh, mbubboo si bi alors mm-hmm. euh, loolu mooy li nga xamante ne moom mooy problème bi man nag li ma gëm ba jàpp ko mooy léegi léegi léegi protocole de Maputo bi. Mhm. bi nga xamante ni euh, Sénégal signé na ko. léegi juriste sénégalaise yi temps jamono jële ca gannaaw mhm. dama déggoon ñu fi wax ni dañu bëgg ñu daganal avortement médicalisé mhm. nga xamante ni cas yi nga wax sax nee nañu moom moo tax parce que ay inceste ay nangam nangam nee na yooyu moo tax ñu ki ko mais ONG mel ni Jamra ñoom dañoo xaw a réticent <coughs> ànduñu ci loolu aussi conséquences yi mu mën a def est-ce que bariwul waaw xam nga boo xoolee li tax Sénégal protocole de Maputo mëtaguñ ko appliqué euh, dafa am ñoo ay opposition yoo xamante ne am na ci mais man damaa jàpp ne protocole de Maputo dañ ko war a appliqué avortement médicalisé dañ ko war a daganal ci réew mi parce que imaginez jigéen bi nga xamante ne dañ ko violé ba mu jëlee ci ëmb ñu war koo bàyyi xale boobu màggaale ko ah. imaginel ki nga xamante ne jigéen bi nga xamante ne euh, inceste moo ko dal maanaam yow sa papa moo la biiral te am na fi papa bu biiral doom wala nijaay bu biiral dégg nga maam xale bi ak yooyu noonu maanaam inceste mooy viol bi nga xamante ne da nga ci jëlee ëmb te ëmb gi ki la ko teg sa mbokk jege ñaaleel mhm. imaginel jigéen bi nga xamante ne dafa ëmb doom boo xam ne papaam moo ko biiral ah. mu war a xale boobu ñu war koo bàyyi mu war a màgg jigéen boo xam ne dañ protocole de Maputo dañ ko war a commencer appliquer Sénégal médicalisé. Mm-hmm. avortement médicalisé dañ ko war commencé appliquer protocole bi pour ñu appliquer ko nan la yan dañ koy harmoniser ak suñu loi nationale parce que bokkul ak règlement parce que bu doon règlement c'est uh-huh. d'application immédiate comme règlement numéro 5 de l'UEMOA bi prévoir présence de l'avocat dès l'interpellation boobu moom c'est d'application immédiate et fii respecté wuñ ko boobu aussi en parenthèse la waaw waaw mais mais mais c'est vrai que am na ay résistance fenn mais mi ngi ñëw nank na mais mi ngi ñëw nank na ah d'accord mais protocole de Maputo li ci des mooy ñu harmoniser ko ak suñuy loi nationale mm-hmm. député yi voté loi bi assemblée nationale ñu dëppale ko mais dafa am ay résistance yoo xamante xamante ne moom moo ci am donc vraiment xoolee ci wàllu diine parce que nga xam ne dañuy bañ ñu ñu daganal fi avortement médicalisé je mhm. rappelle que waaw li ñuy parce teg ñaari argument la mhm. benn dañ naan non non non bu boobaa ce sera la porte ouverte à tous les maanaam maanaam bi dafay bëri yàmm demeewul noonu de mm. avortement médicalisé bu ñu ko fi daganaloon mhm. koo xam ne dañ la violé wala yooyu noonu ba nga jëlee ci ëmb balaa ñu ko yàq il faut une décision de justice il faut mm. que mu am décision jugement boo xam ne yoon day àtte mbir mi ba jàpp ne viol am na ba pare donc c'est bien encadré de. du dañuy tëb nii rek ku mu neex rek nga jug ni damay. avorté ëmb rek ni damay dem avorté. boo taxawee ni dañ maa damaa ëmb te ci viol laa ko jëlee il faut mu am jugement une décision de justice. Hmm. buy dëggal ni kat effectivement viol am na. mais mais foofu aussi am na am na da ngay dem hôpital ñu def ko du da ngay toog fi nga. fi nga am na tuuti loo xamante ni sew sew la. Mhm. tey jii xale bu jigéen bii génn ak copain mhm. bu nuy wax euh, ay avortement médicalisé ñu waaye dencante yi ñu ñuy wax. tey jii xale bu jigéen bi génn ak góor góor ga ëmbal ko bañ ëmb ba bàyyi ko mhm. bu demee ni kii daf ma violé woon nangam ak nangam loolu aussi nan la ñuy def pour pour pour pour pour euh, vérifier ko. waaw bu fekkente ne dañuy xool li ñuy njëkk a lijjanti. mooy c'est sa parole contre. Euh, li ñuy njëkk mooy xale bu jigéen bi taxaw ni dañ ma violé majeur la wala mineur. ok bu dee mineur. Mhm. loi bi li mu wax dafa leer naa ñu. mineur alors procureur la mu d'accord mu ñàkk d'accord. Mhm. boo tëddeeg moom boo ñëwee dañ lay tëj. ah d'accord bu dee majeur la nag bu fekkente ne d'accordoon na amul problème. Ah, parce que boobu consentement la en matière de viol bi toujours loi daf ci tenir compte consentement mooy est-ce que ku jigéen ki da cee d'accordoon même bu dee ku jigéen ki sa gel la. Ah. mu d'accord ngeen tëdd dix fois. waaw ah. fois bi mu bañ. boo ko forcé violé nga ko. li xam nga li ma laaj tontu woo ko dama ni ñaar ñiy génn. waaw ñu am des relations consentantes. Mhm. léegi xam nga xale yu góor dañuy jékki-jékki rek cuubu mhm. yow kooku jële <laughs> yenn yi waa ñi nga jékki xale bu jigéen bi jële ci ëmb yàlla def grossesse baa ngi dem mais waa ji bàyyi na ko ba tourné dem ci leneen mhm. bien que ni reconnaître na ni mooy doom ji loolu daf fii am cas yooyu mais tey jii femme bi bu dee courant la wala dara mën na dem accusé ko de viol ni daf ma violé ba ma jëlee ci ëmb ak yooyu. loolu nan la ko góor ki di setee wa wa waaw parce boo xoolee loolu du viol. waaw du viol. du viol ci da mais pour justifier ni lii du viol. moo tax boo taxawee boo demee ne da ngay pour viol. dafa am ay mbir yoo xam ne ci la ñuy sukkandiku bu ñu lijjantee âge bi ba pare. dañuy xool certificat médical. parce certificat médical bi day addu ci ñaari mbir. Mm-hmm. bëri nag nit ku jigéen bu taxaw ni dañ ma déversé ñu certificat médical certificat médical mais def ancienne maanaam kii ba mu ñàkkee ndawam yàgg na xam nga yooyu ça pose problème te dossier Sweet Beauté c'est exactement ce qui s'est passé mhm. donc loolu loolu cas boobu noonu da ciy am donc certificat médical bi tam dañ ciy sukkandiku pour loolu mais bu dee cas bi nga wax effectivement du viol parce que am na fi cas bu mel noonu viol moom damay bañ a tudd tur yi. mais am na fi cas bu mel noonu parce que ku jigéen ki dafa dem porter plainte pour viol. waaw parce que dafa ni waa ji da ko diggoon da koy takk. Ah, loolu laay wax cas maa ngi ñëw xam dégg naa la. Uh-huh. waa ji da ko diggoon ne da koy takk. Mm-hmm. ndaw si nee na diggante juin. Mm. ba décembre. Mm. waa ji doon ko tëddee saa yu ñëwee rek saa yu waa soxlaa mu jox ko boppam. Mm-hmm. bañ duggee ci at mu bees mi takkuñu ko nag mu porter plainte pour viol. Ah, mais plainte bi mujjul fenn dañ ko classé sans suite parce que dañ ko ne loolu du viol. góor dig la ne da takk. tax nga jox ko sa bopp nangu mu tëddee la. mu dem ba ci biir la. Mhm. nga ëlbati ko bëgg a porter plainte pour viol loolu du viol. mais du abus de faiblesse aussi. xaw ma nu ñu ko mënti tuddee waaye du viol parce que problème bi mooy. waaw imaginer viol boo xamante ne juin ba décembre. waaw. Ah. juin ñu tëddee la mu jeex nga ñëwaat juillet ñu tëddee waat la août septembre octobre novembre décembre. nga amoon possibilité da wala dem kalaame saa yu la kiiwee nga dem mu neex nga dellusiwaat. après nga bëgg mu dem takku dem takk keneen nga nga ak loolu mais léegi bi ci jëlee woon ëmb ni ëmb bii ma def waaw ëmb ma ci violé woon dama noppi woon mais loolu waa ji mën na ci am problème pap non problème bi mooy xam nga dèjà nee naa la cas bi du viol parce que dèjà li ma la njëkk a leeral mooy ëmbal du délit loi terew ko nga ëmbal bañ ko it du délit adduna bi yëpp taxaw man nag looloo ngi bëgg dagg sama xol bi taxaw ni diw mii kat moom dañoo nuróo yàlla def signe yëpp nuróo si loi mënul ci au contraire yow ku jigéen ki loi dalay tere ngay dem di wuru bàyyi ku góor ki ah bàyyi xale bi te heure bu bëggee reconnaître loi bi dalay tere tam ngay moo tax déclaration de naissance déclaration xale bu judd hmm. yaay du déclaré jigéen du déclaré papa mooy déclaré waaw bu ñu parce li tax loi bi def loolu hmm. papa mën naa bañ ne juruma hmm. yaay ji forcé ko dem ne da koy déclaré jox ko santam moo tax papa mooy déclaré yaay amul droit déclaré donc foofu aussi maa ngi ciy attention officier officier officier d'état civil parce que ñu ngi koy def ku ñëw déclaré xale ñu jël la alors que la loi interdit formellement mhm. ñenn ñi nga xam ne ñi mën a def déclaration xale mhm. loi bi da leen a tudd d'accord lay jël sant yaay ku koy déclaré ku koy déclaré yaayam déet du déclaré waaw maanaam dafa am ay cas d'exception am ah. yoo xam ne rek ah. keneen ku dul papa sax mën na ah, na def déclaré mën na déclaré xale mais dafa am dëkk bi ñu déclaré ko ci keneen te moom du ko yëg kan si papa ji nekk fi tur xale bi ñu déclaré ko jox ko santu keneen. waaw te moom papa ji du ko yëg. Ah, comme day fekk mu bañ ëmb bi papa xanaa day fekk mu. maanaam bu fekkee danga ne papa rek mooy déclaré. waaw xale bi am na ëmb. Mhm. moom ak yaayam wala bàjjanam bi xale bi juddoo. Mhm. soit kële nangu ko ngénte soit bëgguñu sax mu jur ko ndax fi mu bokk. Mhm. xëy na jege na kër gi. xëy na sori na waaye bëgguñu mu jur seen doom. ñooñu mënoon jaar ci suuf dem déclarer ko. te alors que loolu warul woon na mën a nekk. déclaration boobu amul valable. voilà léegi nag bu fekkee ne nangu nañ déclaration bi rek war na nangu abus de faiblesse ba wala viol ba wala dara ba associé nu waa ji ci kër gi. ci ci histoire bi. dekk loi bi daal li mu wax ci côté boobu leer na naañ bu fekkente ne ku góor ki reconnaître na xale bi bu dee xale bu juddowul ci buum la. Mm-hmm. ji reconnaître ko. su boobaa c'est très simple neex naa lijjanti mais bu dee papa ji reconnaître ko. Mhm. ku jigéen ki yaay ji santam lay jox xale bi bu ñu demee ba jëmmi jamono nag papa ji reconnaître xale bi su boobaa ñu soppiwaat kayit yi mu jël sant baay nag boo ko waxee man dinaa ci opposé. en fait bi day protéger xale bi day bañ xale bi am kayit. te war ay war a jàng école waaw léegi bu ko papa ji bañee à nag mu mu mu wéy mu continuer ak sant yaay ji waaw mi ngi noonu kon kañ nag prox ndoll googu ñu may xale yu góor yi nañ ko dindi mm. parce que munoo ëmbal nit mu am doom baara mm. ba wasin nga bañ ko ba mu neex la nga dem doxi say soxla ba sa conscience dabaat la nga mm-hmm. ñëw ni da ngay reconnaître ah mais noonu ah. ne par exemple góor bu biiral jigéen du délit et boo boo boo boo bañ a reconnaître xam nga lu du délit xam nga lu tax loi bi wax ko jamono ji dafa tërë a attention xam nga lu tax jigéen mën na ko siq ak ñu bëri tànn ko ko ci neex jiñ ko ko ana ADN ci benn guddi ci benn guddi ana test ADN yi xew léegi bu fekkente ne dañ laa topp pour viol yow mi ñuy jugé. yaa koy fayal sa bopp. te boo amul moyen yoo ko fayee te sa aden ay 500000 francs boo amul moyen ne dañ leen di kon jugé pour viol yow mi ñuy atte yaa koy sa va poser problème. donc loolu tax loi bi jël précaution yooyu. jigéen mën naa seq fukki góor. waaw xool ku ko ci neex dañuy xool benn yambar bu mel ni Pape Ndiaye rek ne dañ ko koy jiñ bu boobaa day ah, li tax mu compliqué sax parfois